ñoo xam ne ay euh, oustaz dañ gis nañ fi ñoo xam ne miin nañ leen bu baax a baax euh, ci ay euh, ci ay cérémonie yu noble yi wala ci ay événement yu noble dañ leen ciy daal di gis tey nag ñu gis fii imam Makhtar gis nañ ko fi ak ki nga xam ne moom mooy Diagne solution sax ay gis nañ ko fii le rien que rek pour mu daal di ñëw maanaam féddaliwaat waaye tamit wane que ne Palestine du wéet ci li xeex bi nga xam ne ñoom moom la ñu daal di woote yéen a gis ni nga xam ni Euh, nit ñi noonu la ñuy ñëwee di apporter euh, seen euh, soutien waaye tamit di wane seen solidarité bi nga xam ne am nañ ko ak le peuple palestinien te tamit loolu lañ fi daal di nemmeeku cet après-midi fii nii ci grande mosquée de Dakar comme ni ma ko waxee tantôt que ne ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser bile mbir waaye tamit bile national pour la cause palestinienne au Sénégal en collaboration. en collaboration avec les forces vives de la nation maanaam waa F24 ñoom it bi xam naa ne euh, dinañu fi daal di euh, seen parce que am na ci ñenn yoo xam ne euh, gis nañ leen fi mais xam naa ci kanam tuuti dinañ leen fi gën a gis parce que ñoom ñoo ñoom ñoo collaboré wu ak l'Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal maanaam ñoom ñoo def benn collaboration ngir lan ngir won Euh, peuple palestinien ngir wan jullit yi nga xam ne euh, ñoo nekk foofu noonu ca Palestine que ne leen euh, bii leen mbir doo ci wet benn yoon te noonu la ñu daal di nemmeeku fii nii ci grande mosquée boo gisee mobilisation bi yeneen gis noonu nit ñee ngi ñëw benn par benn am na ñoo xam ne installé wu nañ ba pare xam naa ci kanam tuuti bii les événement waaye tamit bii les Euh, maanaam biir événement aussi euh, dina daal di euh, tàmbali ci kanam tuuti yéen a gis nit ñee ngi ñëw waaye tamit ñu nemmeeku fii ne am na benn maanaam sécurité bu doy loolu nemmeeku nañ ko police ñu ngi fii waaye tamit indi ci benn mobilisation bu am solo ñu mi tamit nemmeeku nañ ko ci ñoom parce que ña ngay garantir li nga xam ne moom mooy ordre beeg li ni mel ak sécurité nit ñi aussi yéen a ngi gis noonu ku nekk rek yaa ngi taxaw waaye tamit yaa ngi xaar. li nga xam ne moom mooy euh, bii les mbir daal di euh, tàmbali pour nga wane euh, sa soutien waaye tamit pour nga wane nan ngay jàppale waa Palestine te loolu lañ fi daal di nemmeeku xam naa ne mobilisation bi noonu ngeen di gis noonu ñu daal di toog rien que rek pour apporter seen soutien waaye tamit pour wane ne pour Palestine yéen doo leen wéet t-shirt yi yéen a gis noonu Free Palestine lañ ciy daal di nemmeeku maanaam nañ libéré. Palestine parce que jamono ji euh, moor yi nga xam ne nemmeeku nañ wala moor yi nga xam ne euh, ñu ngi ko fay tudd mu nekk nag benn bilan boo xam ne mais nekk benn bilan boo xam toll ci plus de 7000 euh, personnes yoo xam ne ak ay tout tànk yoo xam ne ñàkk nañ ci aussi seen bakkaar ay images yu doy waar ngay gis ci mbirum Palestine boobi la Israël guerre boobi la mi nga xam ne ni ki 7 octobre 2023 mën naa ne on peut dire que ne la lépp daal di Euh, tàmbaliwaat ñu gis woon t-shirt yéen gis noonu Free Palestine euh, la ñu daal di euh, nemmeeku noonu léegi li dafay firndeel que ne lenn rek lañ bëgg moo ñu libéré Palestine ñu bàyyi Palestine mu daal dund yéen a ngi gis nit ñee ngi ñëw di jóge un peu partout di ñëw ngir apporter li nga xam ne moom mooy seen soutien yéen a ngi gis li nga xam ne moom mooy yile tableau yile tableau yi nga xam ne ñu ngi ko voilà ñu bàyyi la garaadi wax waaw <laughs> voilà on va avoir voilà merci beaucoup. merci à vous. beaucoup voilà moom tamit euh, dafa ñëw en tant que xale euh, ñëw na aussi pour apporter euh, li nga xam ne moom mooy soutien waaye tamit di wax que ne Free Palestine maanaam nañ bàyyi Palestine loolu tamit libéré aussi Palestine ndax ku ne xam ne ne image yi nga xam ne ni ko fay gis image yu doy waar loolu ay loo xam ne da ngay gis ne da ngay gis ne seen ay boo maanaam boo xoolee image yi rek sa yaram dafay daal di daw te loolu le xaaruñu ko woon ci loolu le waaye tamit jullit yi aussi yi nga xam ñoo nekk foofu noonu ca Palestine la nga xam ne ñu ngi ko fay dund aussi metti na loolu voilà bonsoir. bonsoir madame. voilà quelle expression wala quelle impression avez-vous aujourd'hui. ah on est très content du rassemblement ça fait toujours plaisir de soutenir une cause qui est juste. Et on est là pour dire à Gaza qu'on est avec eux, on se tient avec eux, Inch'Allah. Vive la Palestine Vive la Palestine voilà. Et la Palestine vaincra voilà merci beaucoup merci à vous. beaucoup voilà gis ngeen bu baax a baax la nga xam euh, daal dina koy wax impression euh, tey fii nii euh, ci fii nii ci grande mosquée de Dakar ñoom nag ñu ngi wax que nii vive la Palestine la Palestine vaincra loolu la ñu daal di wax et aussi mu nekk tamit benn cause bu noble boo xam ne tey moom moo leen fi daal moom moo tax ñu daal di fi teew loolu lañ fi daal di nemmeeku voilà sëñ bi ñu ngi lay ziar voilà merci kon moom peut-être muñ ta wax moo tax ñu koy jaajëfal bu baax a baax yéen a ngi gis euh, image yi euh, noonu ñoom i tamit ñi ngi daal di ñëw rek li nga apporter li nga xam ne moom mooy seen euh, soutien di wax que ne Palestine vive la Palestine waaye Palestine vaincra loolu la ñu daal di xamle te loolu lañ fi nemmeeku ni euh, jamono ji yéen a gis une grande mobilisation fii nii ci grande mosquée euh, de Dakar ngir daal di soutenir euh, peuple palestinien bi lool lañ fi daal di nemmeeku ndax yéen a gis drapeau yi waaye itam yéen a gis une grande mobilisation moom ngeen ni seen noonu ne comme ni ñu comme ni ñu koy wane voilà boo mënee jëlal lee rek l'Israël n'existe pas. Voilà, nous condamnons avec vraiment, vraiment son, voilà, son, acte, son acte de barbarie et de euh, férocité. Voilà, loolu la ñu daal di demee ko envers le peuple palestinien donc tous Hamas loolu la daal di xamle voilà mi ngi nag moom tamit lii lay rek apporter li nga xam ne moom mooy soutien euh, la peuple. ou bien le peuple autant pour moi le peuple palestinien loolu la ñu di nemmeeku yéen a ngi koy gis noonu ñu ngi ñëw nag nànk-nànk di ñëw ngir daal wane li nga xam ne moom mooy seen euh, soutien et aussi ñu leen ciy félicité bu baax a baax parce que une grande mobilisation la ñu euh, nemmeeku fii de xam naa dinañ ci daal di ànd ak yéen yéen ñi nga xam yéen ñu bàyyi xel sur continuer leen di like li nga xam ne moom mooy euh, live bi di ko partager et surtout aussi euh, di abonné dafay nekk lu am solo voilà jullit ya nga xam ne ñoo nekkoon ca Palestine jafe-jafe yi nga xam ne ñu ko fay dund moo waral tey rek. voilà et ça mbokk internet leen daal di rek ngeen daal euh, dund li nga xam ne moom mooy euh, bii euh, événement ak li nga xam ne rek moom moo ñu fi daal di dajale moom moo fi daal di dajale moom moo ñu fi daal di dajale ma bàyyi la ngeen ko suivre ko ensemble. wane na population sénégalaise bi Sénégal hukumatan wa shaaban ñun ñëpp ñu ngi am lu naqar li xew foofu loolu mooy sabab ñëw bi ñu ñëw fii tey ñu fas yéene nag commencé liggéey incha allah. salaamaaleykum tos ba mu tëgg. xam ngeen ne ah, artistes yi ñu ngi bay seen waar ci conscientiser adduna bi ci li nga xam ne moo fa xew suñu artistes yi réew mi aussi ñu ngi bay seen waar. looloo tax ñu fas yéene tàmbali liggéey bi ak troupe bi ñuy wax Salsabil ñu indil ñu li nga xam ne def nañ ko pour jàppale seen mbokk yooyu nga xam ne ñoom la ñuy massacré fële ci ritaay Gaza kon waa Salsabil maa ngi leen di ñaan ñu jege si nu mu gën a gaawee ñu gagné temps waa Salsabil ay na hum